alors euh, yan nga nga mën a indi ci information bi nga xam ne mu ngi circuler euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy presse bi mooy mu di police def na fi ab descente fii ci Sen TV lan moo waraloon descente boobu. ah du police sax gendarmerie la gendarmerie la ñoo fi ñoo fi wàcc si ñoo fi si kanam sànq sànq boog mm, parce que itam dañoo jàppoon ni dafa amoon ay coow. coow yoo xam ne dafa doxoon si diggante kenn ku nekk si kër gi ak ki nga xam ne moo doon invité kër gi di Abdou Khafour Touré Euh, mu doon coow rek coow boo xam ne plateau la amul xeex amul xuloo kenn dóorantewul kenn saakantewul kenn kenn jéemul agressé kenn fii donc loolu il faut ñu leeral ko euh, defe naa ni euh, kay journaliste day def métier politicien bi de def métier am léeg-léeg nag débat fu ñu toll ak si tembe ak saa si tembe jëm si wàllu ay résultat jëm si présidentielle bi léeg-léeg foog nga xam ne xel yeeg xol yi amaana mën na jóg wante gendarmerie bu ñu fi yegsee man de bi ma laajee kenn si ñoom daf ma ne dañ fay ñëw pour sécuriser sécuriser donc ça veut tout dire sécuriser parce que sànq gis ngeen mbooloo bu fi nekkoon takku woon na amoon na ay nit yu fi ñëwoon ñee fare kee ñee fare kee euh, xëy na laale yooyu la ñu bañoon moo tax ñu ñu yegg si fi donc ñoom ñëw nañu fii wante gis nga demaat nañu mais amul lenn loo xam ne daal seetlu nañ ko fi loo xam ne lu jubari la wala lu dëng la ba nga xam ne dal si kenn wala dal si ay nit. alors bu ñu ñëwee tamit euh, ni ñu comporté sur le terrain est euh, am na koo xam ne ci ñoom teg nañ ko loxo wala am na kàddu yu ñu échangé ak moom ci euh, diggante Khafor ak nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany. Ah, déedéet déedéet parce que kii xam naa ni daal moo doon seen chef xëy na moom yéeg na ba ca kaw. waaye si kaw bu yéeg rek la yem xool wàccaat euh, taxawaat euh, quatrième parce que plateau bi cinquième la mu taxawaat quatrième bu mu taxawaatee quatrième wàccaat na génn bu mu génnaatee ba gis ni coow li bari na woo na ay élément am ñu wàcc oto bi ñu ñëw taxaw fii si bunt bi ne képp ku dul liggéey kat si kër gi ñëpp la ñuy taxawee ne donc pour war leen ni rek kon ñoom dañ fee ñëwoon pour sécuriser xëy na mu am yeneen information yoo xam ne ñun c'est pas notre position euh, xëy na mu am yeneen information yoo xam ne ñun yëguñu ko wante de liñ fi gis loolu rek la ñu mën a wax te euh, bu dee dëgg rek moo neex yàlla defe naa ni euh, ñëpp gis nañu ñëw nañu demaat nañu amul kenn koo xam ne bëmëx nañ ko wala koo xam ne yuuxu nañ ko wala koo xam ne def nañ ko loo xam ne naka sa dul noonu la euh, gendarmerie c'est une gendarmerie professionnelle ñëw nañu def nañ li ñuy def après demaat. ana PDG jamono ji ñuy wax. waa moom bu mu paree plateau gis naa ko mu taxaw xafoor pendant pendant cinq minutes ñoom ñaar ñu waxtaan ah donc ñoom ñaar ñoo génnandoo bu mu génnee defe naa ni seen naa ko mu dugg si jaar na le donc euh, waaw jàmm nañ ñooy par plateau la woon et puis voilà basta donc euh, léegi rek ñu ñu véhicule ay information yoo xam ne amaana du ñëw à la source vérifier ko mais euh, c'est de bonne guerre parce que dañoo nekk si si période boo xam ne ak si journée boo xam ne c'est une journée marathon journée boo xam ne xel yeeg xol yi fa nga féete fa la day tàng wante daal euh, jàmm rek moo fi am parce que plateau bi gis nga ko mi ngi wéy defe naa ne boo gesoo gis ni El Hadj Diouf moo nekkaat si plateau bi il fait son show euh, keneen boo demee benn plateau am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si opposition bi def si leur show donc euh, Sénégal moo ni mel mais ñu ñaan rek jàmm am fi parce que jàmm si la lépp xaj donc xëccoo dóorante kenn kenn ñaanu ko échauffourée kenn ñaanu ko crise kenn ñaanu ko parce que itam kay xëccoo. pour am ak ay xëccoo ngir conserver amul si ñoom kenn muy man ak yow mii di ma interroger kenn ku mën a toog waat ni dinaa yeewu suba donc euh, loolu il faut ñu ñu ñu dugal ko suñu bopp xam ni lu am rek ñu ñoo ko bëgg sabab bi ñun la donte la yàlla mooy dogal waaye sabab bi doomu aadama bi la donc na Sénégal sabab jàmm parce que jàmm si la lépp xaj alors journaliste nga laataa ñu lay bàyyi tendance yaa ngi continuer di wéy jamono jii ñuy wax ak yow sa ñaari candidat yi nga xam ne ak probablement mën nañ jàpp ne kenn ki bi deuxième lay jël wala troisième keneen ki jël troisième alors ban analyse ngay def ci li nga xam ne moom mooy scrutin bi. waaw scrutin bi euh, gis nañu déroulement bi ah déroulement bi tendance yi nag da ngay gis benn boor day am Macky fu mu rawee gaa yi lu bari. nga dem beneen boor gis Idriss Seck wu rawe gaañu lu bari nga dem beneen euh, boor nga gis Sonko lu mu rawe gaañu lu bari muy wane ni rek nekk na ñetti candidat yoo xam ne ñoo gën a fës si si scrutin bi man nag du ma aventuré wu man laa wax de du ma aventuré wu parce que je ne pas expert bi nga xam ne dafay jël ay voix di ko agrégé pour décompter ko Euh, wante tendance yi euh, mi ngi génn tendance yi ngi wéy parce que résultat yi jeexagul fii si Ndakaaru gi résultat yi jeexagul si yeneen département yu bari tam résultat yi mi ngi woy di wàcc mais dama jàpp ni rek euh, scrutin bi danson son dans son ensemble déroulement bi baax na donte le am na ay couac parce que itam modification carte électorale bi andi na ay gàllankoor si ay ay électeurs yu bari ay électeurs yu bari voté wuñu tey parce que amuñu carte d'identité amuñu carte d'électeur Euh, ay ay ay ay ay ay citoyen itam def nañu ay ay réclamation nii dañoo ñëw fekk ñu voté seen place donc ma jàpp ni rek euh, war nañu gën a parfaire parce que boo jëlee cinquante deux milliards euh, de l' argent du contribuable dugal ko ngir confecté confectionner ay carte d' identité biométrique ñu ne carte yu yees la carte yu baax la mu nekk recto verso fii carte d' identité fële carte électeur ñu def si xaalis gu toll noonu jàpp naa ne liggéey bi kii waroon na gën a mën a mucc ayib ba nga xam ne benn Sénégalais du si am gàllankoor nous sommes que 6 millions 600 et quelques mille électeurs alors que Nigeria boo ko gisee 72 millions d'électeurs donc euh, c'est c'est c'est au septuple par rapport à la population globale du Sénégal ma jàpp ni rek suñu ne démocratie majeure la ñu bu ñu nee démocratie bu dëgër la ñu war na fës si si acte bi war na fës si xoolin gi war na fës si comportement bi war na fës si lu bari parce que gënuñu dëkk yi nga xam ne ñu ngi suñu côté Mali ngi ni gis nga noor bi terroriste yaa ko moom daanaka boo xoolee Tchad terroriste yaa ngi fay dóor boo gisee Burkina terroriste yaa ngi fay dóor boo gisee Niger terroriste yaa ngi fay dóor donc l'exception Sénégal dafa am lu ko war a confirmer te lenn moo ko mën a confirmer mooy muy politicien bi muy journaliste bi muy sitoyen bi muy fonctionnaire bi ñu gëm ni ku si nekk sa pàcc li nga sa war a def nga def ko si cellaay nga def ko si dëgg nga def ko si dëggu ba nga xam ne doo gaañ euh, sa moromu Sénégal nga xam ne Sénégal benn bopp la waruñu ko xar ñaar te euh, buñ ko defee noonu gëm naa ne dinañu gën a jëm kanam di ñaan rek élection yi jàmm juddu si jàmm wéy ci ba nga xam ni Euh, suba gannaaw suba ku nekk luy sa occupation dinga nga ko mën a def si jàmm ak tekk tey wante ñun presse bi dañoo am rôle majeur boo xam ne dañ ko war a jouer parce que presse jamono ji buñ ne éthique danga si doole ne déontologie xam nga déontologie dañ la ko jàngal sax théoriquement wante éthique amul benn université dans le monde boo xam ne dañ koy jàngale ma jàpp ni rek képp kuy taskatu xibaar ak foo munti ne euh, bu bu bu bu bu patron wala xarit wala ka tax nga engagé wu engagement boo xam ne danga nga see fës ba takk ci rib parce que itam impartialité dootu fa am équilibrisme dootu fa am ba tax na ñun suñu wàllu bopp war nañu toogaat waxtaanaat xoolaat suñu su suñu suñu suñu biir te jàpp ni itam Sénégal warul toll foo xam ne dañu naan kii bu gañee ah ñii dañuy sonn wala kii bu perte ñii dañuy sonn parce que démocratie warul doxee noonu société buy dox warul doxee noonu élection compétition la ñaari camp forcément ñooy jàkkaarloo ay camp ñooy jàkkaarloo démocratie majeure nag bu ko waxee comportement la encore une fois dañu naan démocratie c'est le moins mauvais des systèmes wante ñun warul nekk le plus mauvais des systèmes suñu dëkk mais médias yi itam. muy man muy keneen muy samay morom ñëpp ñu nekk ay ndaw di si liggéey nañu jàpp ni rek nous devons informer juste et comme ni ñu koy jàngalee war nañu taataan ay information jox ko population ñu mën si jaruñu mais positivement et non négativement bay andi par parloo bay andi xiiro bay andi ŋaayoo bay andi xeex ba nga xam ni la xewoon Rwanda en 94 avec la rajo Mille Collines ak yeneen dëkk ay médias taal nañ ko wante ñun na ñu def attention xam ne nous avons hérité véritablement d'un système Euh, d'information de, et de communication performant légués par des, par des, par des anciens yoo xam ne taxawaay nañu taxawaay gu rafet ñun nañ ko perpétuer ba nga xam ne ëllëg dinañ ko mën a jox suñuy rakk suñuy rakk-rakkaat ba nga xam ne dinañu ne presse sénégalaise c'est une presse euh, professionnelle mais une presse citoyenne parce que au service uniquement au service du peuple et non des clans